yarbutu almuslimina jamian bi ribatin huwa awsaxu rawabit wa ribaatu wa ribaatu luxuwa allati tanbaxu min taqwallah wa tilka rabita allati tanbani ala aluxuwa lillahi subhana wallati tasulu amamaha jamia alfawariq min nasabin ariqin wa maalin wa fiirin wa jaahin aridin ila xeyri salik mima daraja annaasu ala ixtibaarihi min almumayasati bayna annaas ولقد استطاع الإسلام بهذه التعاليم البينة أن يبني أمة تعبد الله وتفعل الخير wa tujahidu fi sabili lmusuli l ulya wa taamalu li dunya kama taamalu lil axira wal islaamu yuhibbu li ahlihi an yaxyaw ka aqwa ma takunu alxayaat wa an yunaadilu ka asadi ma yakunu annidaal wal ah, falxaayatu faxaayatu alxayaat fi nasari alislaam hiya ixsaanu alamal wa itqaanuhu wa idhaaru wa idhaari almawaahib wa ibraasi alquwa alkaamina fi nnafsi alinsaniya تبارك قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال سبحانه أيضا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وما لم يحقق الإنسان هذه الغاية فهو في خسر ونقص يعرضه للدلال والسقاء يقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabri wa yaqulu aydan laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladina amanu wa amilu salihati waxat taxjubu nafs al insana ala alxaaya allati xuliqat min ajliha fa tansarifa anha mutaallilatan bil amaani alqaadia wal amaali alkaadiba fa asdara alislaam xukmahu alxaasim yaqulu subhanahu laysa bi amaniyukum wala amani ahli kitab man yamansoonu jita bi wala yajidluhum dun lay waliyan wala nasira wa man yamal min salihat min dakarin unsa wa moon fa ulaika yadxuluna aljannata wala yuslamuna naqira wa yaqulu subhana wa yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam laysa alimanu bi tamanni walakin ma waqara fi alqalbi wa saddaqahu alamal wa inna xawman xarrathum alamaniya ata xaraju min addunya wala xasanata lahum wa qaalu nuxsinu sanna billahi wa kadabu law axsanu danna la axsanu alamal wa taallulu bil amaani daliilul hubuqi wa tays yaqulu subha yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada almawt wal ahmaqu man atbaa nafsahu hawaaha wa tamanna ala allahi al amaana al amaani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 julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko suñ borom digale ñuy tàllal suñuy loxo bi di di di ko jëmale ci suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man te mooy mooy ki nga xam ne mooy borom sañ-sañ mu Cheikh Mamadou Mountakha mii nga xam ne moo moo fi nekkal Serigne tubaa te am ay yéene yu rëy rëy ci biir lislaam suñ borom dimbal def jàppaleel ko boppam taxawul ko boppam musal ko ci bépp ndog ak bépp bakk ba lépp loo xam ne yéene na koo def ci yoonu lislaam bii mu def ko ci defe nu ko njortam tañ ànd kook moom te ndaje ci ngërëmul sëñ Tuubaa ak suñ borom yow suñ borom mën na ko jàpp na ko nañ ko defal di tàllalaat suñuy loxo itam ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy man te mooy borom sañ-sañ képp koo xam ne lislaam la tax a jóg suñ borom jàppaleel la boppam taxawul la boppam ba li nga xam ne yéene nga koo def nga def ko lu kawee sa njot te nga daje ci ngërëmul suñu borom mi nga xam ne moo tax ñuy def li ñuy def ginnaaw loolu nag bi ñu nekkee di waxtaan ci li nga xam ne moom la lislaam bëgg xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ci muy nekk benn jàppoo di dim di dimbalante bëggante loolu nga xam ne nag da koo teg ci ay ay ay ay taxawaay yu rëy yoo xam ne ba tax na bu buñ fekkee ne jaar nañ ci ni nga xam ne ni lañ ko tegalee jaar dox ci ni nga xam ni la bëgg ñu doxee ca ñu doxee ca ni nga xam ni la ni la ni la bëgg ñu doxe ca lépp loo xam ne mooy ak ko wala lépp loo xam ne mooy ak doyadi wala lépp loo xam ne mooy ak matadi dana jóg suñu diggante ndax kenn ku ne da nga mën a mottali sa morom la la la manque ci yow bu fekkee ne ànd nañu doon benn te ànd googee nag suñ borom xam ne ñu ànd gi lii tax mu mën a dëgër mooy ñu teg ko ci ragal yàlla képp ñuy ñuy xool doomu aadama ñuy xool ci doomu aadama yàlla te bañ cee nit ki nañuy xool ci doomu aadama yàlla ji te bañ cee xool nit ki loolu mooy tax ànd gi nga xam ne moom la ñuy ànd mu mën a doon ànd goo xam ne gu rëy la mooy mën a ànd mooy taxit ànd nga mën a sax ndax leneen lu mu mën a doon buñ ko bu fekkee ne moo tax suñu ànd nekk mu nekk loola mën na mën nañ koo ñàkk wala ñun ci suñ bopp ñen ña wala ka ko seqaloon jóge fi te loolu ya kon mu day kon ànd ga ga nga xam ne moom ngeen waroon ànd tam doon ànd goo xam ne da ngeen ci jariñu fii adduna ak alaxira ngeen mën cee jariñu ni nga xam ne neen ko suñ borom bëggee loolu nag moo ci loolu nag ci taxawaay yi nga xam ne moom la lislaam taxaw ngir bëgg doomu aadama yi bëgg seet xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk benn doon ñu am kàttan doon ñu man dara doon ñoo xam ne ñuy xalaat lañ di bàyyi xel ne adduna jii kat suñ borom da koo da koo teg ci ay sabab te da te yam sabab yooyee mu ko teg itam nga xam ne dañoo def loo defarloo adduna defarloo nu alaxira te li nga xam ne moom la ñu jox ci temps bu ñuy war a defare adduna ak alaxira ji xamuñ ni mu toll ndax suñ borom waxuñu ni mu toll kon kenn ku ne da ngaa war a benn jullit bu war am jot wërta am jullit bu ne da war a doon koo xam ne doo doo jàppal ne amoo benn jot boo xam ne war nga koo jeexal feneen fu ci loo xam ne lu lay jëriñ la ci adduna wala ci alaxira waaye ko leneen ci leneen loo xam ne bokkut ak yooyu googu jot waroo ko am ndax li li ñu la jox ngir defar loolu àddina ak alaaxira xamoonum toll ku xamu ki ko koo xam ne nag li nga yor xamoonum toll yaakaar naa boo dee dépassé war ngaa xam li ngay dépassé ni nga koy dépassé ndax loolu mooy tax nga mën a mucc ni nga xam ne noonu nañ ko yaakaar loolu tam moo tax nag suñu borom bi nga xamee ne xam na ne lii mën a dëgëral suñu mbokk ak suñu mbokkoo ak suñu dimbalante ak suñu bëggante mooy ñu teg ko ci yàlla di yëg suñu borom di yëg suñu borom ci doomu aadama ji nga xam ne moom lañ sëqal di yëg di xool yàlla ji képp ci doomu aadama ji nga xam ne moom lañ sëqal ndax loolu mooy tax mbokk gi mën a dëgër loolu mooy tax itam mu mën a sax loolu nag bi ko suñ borom bi ko yonent bi ko lislaam defee tax na lépp loo xam ne mooy lu waroon mën a andi ak tàqalikoo wala muy andi loo xam ne mooy mën a andi ak ak ñàkk ànd loola suñ lislaam dindikoo ci kaw bi nga xamee ne xamal nañu li nga xam ne mooy war a saxal suñu mbokkoo ak suñu dimbalante li koy mën a dëgëral mooy ñu doon ñoo xam ne suñu mbokkoo ak suñu dimbalante ak suñu bëggante dañ koo teg ci kaw yàlla kese di xool doomu aadama ji di xool yàlla ci doomu aadama ji ndax bi leneen luñ ca teg rek loolu moo tax loolu loolu day tax li nga xam ne moom la ñu bëgg ñu ma duñ ko mën a defee ni nga xam ne lañ ko war a defee ginnaaw boobu loolu nag bi nga xamee ne li nekk nañu benn di jàppalante di dimbalante xam suñu waxtu itam nan lañ ko war a jeexale da caa teg moom lislaam ne dañoo war a doon ñoo xam ne nag waruñoo toog di acaaral wala di di xoole dañoo war a doon ñoo xam ne suñu waxtu dañ koo war a jëf ci jëfe ci loo xam ne moo mooy li li ñuy li ñu fi indi te bàyyi nu fi loola nag mooy jaamu suñu borom ak itam di liggéey ngir àdduna si jag na mu war a jage suñ kéemtalaay kattan ci doom ci ci ci ci ban manu doomu aadama loola nag moo tax ba lislaam muy mu doon koo xam ne li muy xoole àdduna ci li fi doomu aadama war a fee def mooy suñ borom da koo jox ay xéewal jox ko kattan jox ko man-man di ko seetlu nag ba xam moom xéewal yooyee mu ko jox ak kattan googee nga xam ne moom la man moom la ko jox ak man-man yooyee nga xam ne moom la ko jox nan la koy jëfandikoo ndax da koy jëfandikoo ci yoon wa gën a rafet wala da koy jëfandikoo ci neneen nu bokkut ak nga xam ne moom la suñ borom loolu nag jàkk koo jëfandikoo nag ci ni nga xam ne moom la ñu suñ borom bëgg ñu jëfandikoo ko loolu day day tekki ne ñun day ñi ngi jeexal suñu taa ci lu amul njariñ ñoo ngi ñoo ngi jeex ñi ngi jeexal suñu dund ci loo xam ne pertement rek la ñuy andil loolu boo tax suñu borom di wax ne wala asri inna al insana la fi xusr ila alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr xam leen ne doomu aadama yépp day kenn kenn ku ci melul nii nga xam ni lay bëgg a wax day na xam ne yaa ngi jeexal sa dund ci loo xam ne du lay jural ëllëg njariñ te alay àdduna si itam mën na la fee bana jural jural njariñ loola nag mooy waxtu bu nekk nga def sam xel ne la ngay def na doon luy jóge ci sa pas-pas boo xam ne moom nga pasal suñ fasal suñ borom te boo koy def itam koy defeen ko ci defin wa gën a loola mooy tax ba ni nga bëgg amee li ngay jëf nga na nga ci la nga nga mën koo am na nga ci jàpp itam nga mën koo am ni ni ko ni nga ko yaakaare loolu waaye nag doomu aadama dafa am lu nekk ci moom loo xam ne day xeex ak moom ci ji fas yéene koo jëmale ci nu bokkut ak ni nga xam ni la war a jaar loola nag mooy bakkanam bakkanam doomu aadama mën naa tax ba léeg-léeg loo xam ne war nañ koo def duñ ko def te la tax ñu di ko def mooy dañ ko teg rek ci ay yaakaar ak i jot ak i ak i mébét te loolu doonut loo xam ne lu lislaam nangu la ndax lislaam day wax ne yonent bi sallallahu alayhi wax ne ngëm yàlla day doonut loo xam ne da nga koy wax rek di di ca la nga cay foog wala di ca jot la nga cay jot waaye ngëm yàlla mooy loo xam ne sax na ci sa xol te li ngay jëf li ngay jëf itam ñu di ñu di ca seen sa ngëm yàlla gi nga xam ne moom ngay wax ne am nañ doomi aadama yoo xam ne day nee na seen i yaakaar ak seen i mbibir ak seen njort dana dana dana leen wor ba danañ génn àdduna léeg-léeg te buñ demee àllaaxira duñ fa fekk wenn yiw nee na loola nag mooy la la leen ko yóbbi mooy dañoo waxoon ne dañoo xam ne suñ borom borom kàttan la borom kan borom man-man la te sañ na lu ne te man la lu ne kon nag yaakaar naa jëru ñuy sonn ndax xam nañ ne mën nañoo defal lépp loo xam ne lañ moom lañ bëgg mën nañoo musal ci lépp loo xam ne li mu lañ muslu ndax am na kàttanam am na sañ-sañam waaye nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam le ne rafet njortu dafa doon loo xam ne bala moo dëggu mooy la nga la ngay rafet njot da nga koy jëfandikoo waaye boo jëfandikoowul la rafet njot mel ni comme ni li ñuy suñ Tuubaa jàngaloon ne ñaar ñett dafee nekk loo xam ne dañ koy tuddee rafet njot ak loo xam ne dañ koy tuddee ñaaw njot ak loo xam ne dañ koy tuddee topp njot rafet njot nee na mooy la nga xam ne moom nga wax ne moom nga doon te di ca yaakaar la nga ca yaakaar da ngaa war a jëfandikoo loolee mu lay sant tey bàyyi li nga xam ne moo lay tare boo boo te bàyyi lam lay tere ba noppi boole ci nag rafet njort nee na loolu mooy rafet njort topp njort nag mooy koo xam ne la la la nga yaakaar te di ko topp defoo ci la nga ci war a def ba noppi jàpp ne nag da ci am la la nga bëgg loolu nee na kooku mooy topp njort defoo li nga war a def ba noppi te jàpp ne war la nga bëgg da ko am kooku nee na mooy topp njort ñaaw njort nag mooy koo xam ne da ngay defee ne lépp loo xam ne ñu ngi la koy wax ci lu baax rek liñ ci jublu mooy sonal la waaye doonut ne ndax yàlla moom borom kattan la borom sañ-sañ la borom man-man la te mën na lépp te sëñ na lépp kon lépp loo xam ne doomu aadama mu ngi la koy digal ci ay jaamu yàlla ak sonneel sa ndigal suñ borom te ak bàyyil tere loolu lim ci jublu mooy bëgg laa rek ndax yàlla mën na mën na laa tabal àjjana ëllëg te doo jëf dara loo xam ne man mën na la faa yóbbu mën na laa musal ci sawara itam te doo bàyyi bàyyi woo li nga xam ne moo tax nga mën caa mucc loolu nag ak waru la ak itam ñaaw njortu la ci suñ borom ndax suñ borom lim man mën na lu ne waaye nag xam nañ li muy man man lépp itam am na yoo xam ne mën na ko waaye defu ko loo xam ne nag mën na ko defu ko boo ci bëggee teg sa njort yow day mel ni yaa ngi nax sa bopp day mel ni itam yaa ngi jàpp loo xam ne wërta waroo koo jàpp loolu nag moo tax ñu war a góorgóorlu lu baax di jéem a def li nga xam ne moom la suñu borom bëgg ci ñun di béy fas yéene bàyyi li nga xam ne moom la ñuy tere ba noppi nag boole koog nag rafet njort ci ne bu ëllëgee day li nga xam ne moom la diggee ci ku topp ku ko topp da ko am li nga xam ne moom la moom la tëkkoo ci ki nga xam ne mooy def lu bokk ak li mu digle dana dana la dal loola loola mooy tekki ak rafet mooy tekki ak rafet jot kon yàlla na suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man-man te mooy borom sañ-sañ di ñu dimbali ba ñuy xam fi nga xam ne fi la ñuy teg suñu tànk te di tey dox nañ cee war a doxe ci te doxin wa tam mooy ni nga xam ne ni la ko suñu borom bëgg ndax loola mooy dangay dangay jaam ngay jaamu yàlla ba noppi di def li la war ba noppi nag toog caa teg soog caa teg rafet jot. waaye nag boo deful li la war ba noppi teg ca jàpp ne da ngay rafet njort ca da li ngay bëgg danga ko am kooku day mel ni yaa ngi nax sa bopp koo xam ne itam lañ koy wax ci digal day jàpp ne xëy na ku ko bëgg a rek la waaye suñ borom mën na lépp waaye suñ borom li man lépp tam waxut kenn ne dinaa def lépp waxut kenn ne dinaa def lépp waxut kenn itam ne la boo defee nangam ji wala nga bàyyi nangam ji dana tax ma defal la li nga xam ne moo moom nga moom nga bëgg kon li ñu war a def mooy nañuy def li ñuy digal di mbay li nga xam ne moom la ñu tere ba noppi toog caa teg nag rafet jot yàlla nañ suñu borom dimbale ci loolu ba ñuy xam suñu bopp xam fa ñuy war a teg suñu tànk xam fi nga xam ne fi lañ war a dox jëm ba ba ëllëgee li nga xam ne moom la ñuy yaakaar ci borom ci li nga xam ne diggee na ko ak li nga xam ne moom la moom la tëkkoo li mu diggee mu mu jox nu ko li nga xam ne moom la tëkkoo mu musal nu ci loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana lana min ladunka rahmatan innaka